Pape Bouba Diop comme ni ko sagu département wu tengej la sagu man nañ wax ne sagu aduna képp bërngël képp parce que tey mënuñu wax coupe du monde to duñ tuddu Pape Bouba Diop mu bok ci première génération bi nga xamanteni ni tay ñom ño euh, xamal sénégalais yi nga xamanteni waaw euh, dañ koy ñaanal euh, fi mu dem yalla nako gënal fi mu jóge ci barki yoon ci sallallahu alayhi wasallam ñun loolu koy ñaanal parce que Bouba limu liggé ci lu baax rek man néna loolu ko yalla fay. ñun nee naa buuba defal na àdduna lu baax waaye ñun mënuñu fay waa àdduna parce que buuba lépp lu mu liggéeyoon rek ci waa Sénégal rek fay nañ ko ba àdduna bi fay ko parce que ñun buuba bu anniversaire am ñëwee dañ naan ñun sa bokkatuñ ci ndax ni ko sénégalais di rendre omage te buuba lépp lu mu liggéeyoon ci lu baax daal yàlla fay na ko di ñaanal aussi lion yi fi ñu nekk yal na leen yàlla may ndam ci barki yonent bi sallallahu alayhi wa sallam di ñaanal aussi Sadio Mané yal na ko yàlla yëg ndax doom la comme doom yëpp kon bu ko lii dalee mën na am lii moo neex yàlla kon nag nañ ci bëgg kontaan ci te xam ne lu yàlla dogal rek noonu la ñu ngi koy ñaanal bon gérison yal na ko yàlla yëkkatiwaat ci jàmm ba mu continuer ay activité ci jàmm. li ma fàttaliku si moom bëri na trop saa moom li ma gënoon marqué mooy saa su ñëwoon vacances mu daan indil ay mayo mayo bi mu fubalee si clubam dawal ma si sama tur. ko sama papa pour mu indi la mu ñëw ba foofu noonu